Euh, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam ci turu maam Thierno Lo mi nga xam ne moo jiite coalition Adiana ak mbooleem membre coalition Adiana yëpp di remercier waa Touba ci seen taxawaay ci bi nga xamee ne jug nañ ñëw fii Touba pour taxawal Macky sur le terrain pour wan ko ne ko Touba bañuñu ko mais xëy euh, gisul seen ba premier dépôt suñu premier première ñi ngi déposé 2000 parrains déposé waat nañ 1900 parrains mu nekk 3900 parrains yo xamné déposé nañ ko ci Touba war ngeen ko def euh, Euh, remercier leen toujours ci turu Mame Thierno président coalition bi ci taxawaay bi na xam ne yéen ñëpp taxaw ngeen ko ci Touba yéen ñëpp taxaw ngeen ko pour que am maximum de parrainage ba pare tamit kenn ku si nekk nga soññ sa waa kër soññ sa waa koñ ba na xam ne après tamit parrainage bi ñu def day nekk tamit ay électeurs yoo xam ne dañuy dem voté ji. Andak ak euh, Mame Thierno ak coalition Adiana ñu wateel président de la république Macky Sall pour que mu le premier tour. Euh, lolu mo doon premier point bi kon ñi ngi leen di remercier di remercier responsable yépp di commencer ci soxna loota mi nga xam mi ngi sama nday sama euh Modou Samb euh soxna nday Lo soxna nday Ndiaye Abo euh, ak tamit. Euh, defe naa ne liste bi liste bi gudd na ndax am nañ ñaar fukki secteur ak ñeent ci Touba euh, ñoom euh, waa jàkkay Zeng soxna Issa Ndiaye Lansar Fat Lam Mariama Bopp Njaxat Lo Mam Boussa Niass Mam Ñumbe ñas Joor bu sa Gueye jaal njaay soxna Batoor Fall jabaara soxna Bator Xaya yoonu daaru jabara saam gëm sa bopp Touba ànd liggéey bi nga xamee maas mi ak jigéen ñu am kii ñoo ko jiite Touba sura sura looyeen Touba Lansar Touba Xayra euh, usine glace usine xorom euh, jàkkay seng euh, daaru xuddoos ànd liggéey bu Joor Njaay Touba Daaru Daaru gi Touba Gédé Touba Paleen soxna Bintu Fall ñu ngi koy nuyu bu baax euh, ak tamit Touba Sam ah soxna Batoor Xaya kon daal aji xaar jaw secteur yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant ci turu coalition àjjana yëpp beneen point bi nga xam ne ci lañuy dugg mooy activités yi nga xam ne def nañ ko ci Touba moy tey jii nii ñi ngi ñew pour def remise de diplôme fukki formation ak juroom yo xamné coalition aljana financé nañ ko ci dëkk bu tedd bi ñu defal leen ay formation yenn yi Edme 6 mo ñew def ci kofi formatrice bi jugé won Dakar yi si des soxna Ndeye Lo mii moo wër fep def fa formation yi ñom ñëpp tey jii ñu wër leena jox seen ay diplôme euh bi ci dess moy nous euh, bi coalition au niveau national Nous avons convention des jeunes Les jeunes dajale 250 jeunes euh, président d'ordre pour que nous sur le terrain deuxième convention des femmes Nous avons vraiment parce que nous avons convention Nous avons parole liguey ci liguey bu rafet convention bobu président ci jour bi dafa envoyer Thierno message ne ko vraiment remercier coalition Àjjana ak sen convention des familles. yi <coughs> euh, bërki démb ci min ci àjjuma bi ñu tejé activité yoyu ak convention des cadres ak des sages cadres ak sages ñu dajé def ben huis toute la journée ci siège ba Liberté 6 waxtan ci stratégie bi nga xamé mom lañu wara doxal ba mën a fexe ba falaat Macky Sall activités yooyu tamit dem nañ cees bi ñu demee Thiès euh, vraiment def nañ fa ay ay kii yu am solo euh, Thiès cees def nañ fa benn euh, méga boo xam ne keroog résidence Lat Dior fees dell dem nañ tamit Louga dem nañ ci banlieue bi dajale nañ jamono yi yëpp boo leen xoolee ñu nekk ci whatsapp bi chaque jour am na ay groupement yu ñëw di dooleel ci coalition Adiana di ñëw di adhéré ci coalition Adiana ndax liggéey bu rafet bi na xam ne ñu ngi koy liggéey. jigéen képp ku ma defal formation tàllal sa loxo ku ci am gis sa njëriñ rek tàllal sa loxo maa ngi xamal nag suñu bokk jigéen ñi nañ gën a góor góorgóorlu takku ndax ñu teel a loolu lam liggéey woo ñoom fii def na ko. ndax kalam est dan na ko ñu day formation lañu bëgg ak ku ñu li jox ñu wutal ñu ay financement ñu liggéey léegi defal lañu finance defal lañu ay projet ñi ngi def formation yi pour mën a jàpp ci pour ma commencé liggéey léegi te dugal nañ procès yi pour ñu am am tamit loo xam ne su na jàngalee di ngay liggéey bu say procès dikkee da nga am gën a gën a continuer di liggéey nañ ci jàpp bu baax dafa seen góorgóorlu ba dafa seen ne koñ nag fa nga dëkk na nga dugg say ruq mbootaay goo am boobu ko waxee dinaa ñëw képp koo xam ne amagu finance amagu procès dim nañ ñu ko wax ñu bind ko képp ko amagu ci formation itam nañ ñu ko wax ñu seet si ko a ko formation ndax ñu loolu moo ñu tax a jóg fii ay naxa amu fi bokk liggéey lañ fi gis ñu fi nag lu ñuy séddale xaas bu ñuy jox ñu koy séddale waaye nag jox nañu lu ñuy mën a def ay formation nu ñu di ci liggéey kon nag maa ngi sant si ñi ñëpp yéen ñu fi ñëw ñëpp responsable na li ñëw benn militant yi ñëwul ay responsable ñoo fi ñëw kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye koy jërëjëf àjjana njiitul sëñ Thierno Lo mi nga xam ne mooy jàppale président Macky Sall fii ci Touba ñu tamit ñu doon ay ndaw yoo xam ne dinaa dynamique leen ñu bëgg liggéey ànd ak moom ñu may ñu formation nag ñun jigéenu Touba yi ñi bokk ci coalition Aar Jëñ ñëpp defal nañ leen formation tey nag ñu ñëwoon ci remise diplôme yi ñuy sant bu baax nag Cheikh Abdoulaye Lo mi nga xam ne moo fi toog nekkal Thierno Lo fii ci Touba ak maire Lo mi nga xam ne Ndeye Lo nga xam ne bëgg na jigéenu Touba ñëpp am formation ndax formation ba formé la ba pare ñu doog laa jox ay financement dama yaakaar naa moo gën te maire Ndeye ci loolu lay dox formé nañu ci eau de javel formé nañ ci transformation fruits et légumes formé nañ ci domaine yëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan nag coalition Àjjana jëm ca kanam ñu ànd ak euh, monsieur le président Macky Sall falaat ko premier tour incha allah Thierno loo tamit sant nañ ko bu baax ndax lii lépp ci moom la ndax financement yëpp ci moom la jógee ñu ngi ñaan nag ñu dolli financement yi bu baax formation yi gën a ñëw jigéen ñi Touba gën a mën a am lu ñu liggéeyee ndax muñ jàppee ci dara yaakaar naa moom si kaw rek ci kanam coalition Adiana daal ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax ñun jigéen ñëpp sagal nañu ndax dañoo jox ay formation formation yoo xam ne financement suñ poos demu ci ñoo def lépp kon nag sant nañ leen bu baax gërëm leen leen ñu ngi ñaan nag mu gën a jëm ca kanam rek àjjana daal ñu nekk àjjana fii ci àdduna ba ànd ak dem ca bu ñu wujj bare